wa faddalahu ala al anbiyaai wal mursalin al aliya sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar fa tabaarakallahu di leen baalu xaqta di leen baal di ñaan yàlla réew mi di Sénégal na fi yàlla dotti jàmm di nuyu kilifa diine yi nekk ci biir réew mi fa tabaarakallaahu di leen ñaanal yàlla yal yàlla sàmm leen te guddal seeni fan ñu ngi nuyu sunu woyjur sunu xalifa sëriñ Babacar Sy Mansour di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk leeram yàlla gën koo dëgëral yàlla guddal fanam mu yàgg fi lool ci daraje nabil Mustafa sallallahu alayhi wa nuyu sëriñ Muntaqa Mbàkke ñaanal ko moom it yal na yàlla guddal fanam yokk wéram yàggal ko fi lool ci daraje nabil Mustafa sallallahu alayhi wa noonu la ñu nuyoo Cerno Bachir Taal tabaarakallahu ziyaar ko bu baax sunu wayjur baax boobule ko yàlla moom it yal yàlla guddal fanam yokk wéram ci daraje nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nuyu mboolem kilifa diine yi nekk ci réew mi di senegal dañuy bañ lim. Tabarakallah tabarakallahu waaye ñoom ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wàccee seen te di leen ñaanal ju sax lool tabarakallahu barke maam ya yàlla na sax ci ñoom ci daraje nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu di nuyu Cerno Hamidou Bane di ko ziyaara ñaanal fan ñaanal ak ci daraje nabi Mustafa sallallahu sallam nuyu suñu directrice soxna Yuma Ba ziyaar ko bu baax ñaanal ko yàlla yàlla na yéen bi woyof te xéewal yi gën a yokk ak mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci rajo bi ak télé bi di leen ziyaar bu baax fa tabaarakallah macha allah di ñaan yàlla yàlla na fi jàmm sax ci daraje yi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu suñu technicien bu baax bi nga xam ne fa tabaarakallah moo leen di jox image yi mooy sàmba si ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yokk wéram defal ko barke tabaarakallah ci daraje yi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dellusiwaat ak yéen seen émission Madhoun bi ñuy waxtaane sang-sang yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne mawlaana subhaanahu wa taala ginnaaw bi bindee àdduna ba noppi moom yàlla bindi lépp lu nekk ci biir àdduna ci gàttal dafa yónni ay yonent ngir ñu waar nit ñi xamal leen seen boroom xamal leen jëf ju baax jëf ju rafet waaye ngir ñu defar seeni xol tàggat leen ci ñu mën a wéetal yàlla yonent yi bari jaar nañ fi fa tabaarakallaahu ba ki mujj mooy yonent yàlla isa alayhi salaam bi yonent yàlla isa demee nag toog nañu ab diir yàlla di door a yónni nag xaatimul anbiya wa imaamil mursalin di sang-sang yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla di yónni nag moom njol màkka daa fekk tabaarakallaahu nit ñi yàqu yegg ci xéetu mbon ci dimension bo xamné ni foko nat rek wessu nako ndax fa tabarakallah yeggoon nañ ci jamono jo xamné nit ñi dañu sax ci togn waye dañu sax ci jaamu xërem bay yalla di jaamu ay xërem xërem yo xamné ñoko yettal seen bop xërem yo xamné ñoko tabaxal seen bopp defaral ko seen bop ba mu jekk tek ko di jaamu waye yeggoon nañ ci mbon dañ daan lekk meddi di njaalo di naan sàngara cëf ju bon ju nekk ñu koy def boroom doole yi di toroxal ñi néew doole danga daan xëy sax di tukki ñu dab la ci àll bi jàpp la yeew la yóbbu la beneen dëkk jaay la fa nga doon jàmm dangay ngay xool loolu rek fa tabaarakallaahu yeggoon nañ ci mbon ku am doom bu jigéen da ngay gas daal koy suul te naan jigéen amul benn njariñ dalay gàcceel ngir seen xel mu gàtt ndax bu nu xalaatoon ne bu ñu suulee jigéen ñi ba ñu jeex góor ñi dootul takk jabar te kon boobaa kenn du judd dootul judd kon tabaarakallah mais boobu fekk na ak mbew yegg na ci ñoom ci dayo joo xam ne fa tabaarakallah xamatul sax la ñuy def seydina muhammad sallallahu alayhi wa nag yàlla tànnal ko nag ay maam yu baax yu góor ak yu jigéen ndax yàlla daf ko préparé nag ndax bu ko yàlla préparé woon kon dañ ko tuumaal waaye yàlla daan la ko ay maam yoo xam ne kenn mënu leen jëm tuuma amul ku ci mën a def bàkkaar bu naan la accam muy ci maam yu góor di ci maam yu jigéen moom sayyiduna muhammad salaa sallam ba mu yegg si nag ci way juróom boobu ñuy wax abdallah nga xam ne abdallah moo nekkoon caatu abdul muttalib leerug sayyiduna muhammad moom lañ ko dénkoon bi mu amee 18 ans la ko abdul muttalib utal soxna moom abdallahi sa maam Sidi El Hadj Malick nettali na ko nettali na ko ci xilaas waaw tabaarakallaahu ca ba ñu rombee ndaw sa waaw ndaw sa jigéen sa tudd Fatima mu gis Abdallahi gis leeru Seydina Muhammad ci jëwa Abdallah àndatul ak sagoom nan ko Abdallah nañu làqu rek fii mooy yàlla ah, def na dafa ànd rek bu ñu paree ma jox la téeméeri giléem te boobu giléem mbokk yi jafe na nga ci téeméer loolu alal ju bari la abdallah ne ko amal xaraamu fal ma maa tudduunahu def lu xaraam de daal dee ma ko gënal waaw boobu nag ñu arab bi dañoo am na ñu xamoon seen bopp nag te boobu abdallah mënul def lu mel noonu tabaarakallaahu abdallah ku sàmm wala woon ku ragaloon yàlla mooy def lu mel ni daal dee sax ma gënal wuti nag sun jamono ji ñu nag waaw sa ne wa abdu muttalibin min baadu marra ila fataati zuhrati zaat al majdi wal marra ala mraatin tudaa bi fatimatin tabghil mamaala ilayha wa hiya lam turami ndeysaan abdallah lànk abdallah moomu nag abdul muttalib wutal ko soxna su baax bu ñuy wax soxna amina te nag aminatu naqiyat an sairi tuhami mbooleem lu ñuy tuumaale jigéen set na ci amina amina kenn mënu koo tuumaal parce que jigéen bu sell la woon jàngoon am xam-xam téere yent yalla isa yi daf ko maîtriser won mais don ko jëfandikoo parce que bobu diine yent yalla isa moo fi nekkon Amina nekkon ko gatt tank ken daw ko gis ci mbedd ken daw gis ci grand place ken daw gis muy taxawalu mu ngi nekkon ci wetu way juróom tabarakallah di jaamu yalla nek ci yu kër gi nek jigen jo xamne ni dafa set wetch ken mënu koo tuumaan kooku la Abdallah ñu ngi ko ko may nag alxemes ci ngoon tàkkusaanu alxemes moo tax am na ci culture yi ñoo xam ne comme sama mbokk séeréer yi ñoom bu ñuy mayee soxna bu ñuy may nit koo xam mus am musul am jabar bu ñu koy takkal soxna ñu ngi ko koy defal jour alxemes ci ngoon tàkkusaanu alxemes lañ koy def tabaarakallaahu abdallah nag ñu ngi ko may amina tàkkusaan ci alxemes waaw ca guddi ga la joteek soxnaam Amina ba mu joteeg moom nag ca la leer ga bàyyee ko ca Abdallahi dem ci Amina Abdallah ba mu xëyee la ñibbi moo tax sa maam si da xaajmaa ne laylal arubati xalla dur fi rajabin summal munaadi yunaadi musmi alfahimi mu ne ci guddig te guddig aljo bu ko waxee mooy alxames ci guddi mu ne ca guddi googu nag la leer ga bàyyeekoo ci Abdallahi ñëw ci Amina ah ba loolu xewee nag am na ay haatif yuy wax mais wax ba am na ñu koy dégg mais nekkul ñépp a ko mën a dégg nag ndax bu ñëpp yemoon am ñu génn seen cër wala foo koy wax muy wax wu dëggu ndax yàlla moo yemalewul yàlla moo ne walaw basata allahu risqan la ibadihi la baxaw fil ard su ma jëloon sama wërsëg man yàlla sëmbërtal ko ci jaam yépp ñépp am ku ne am la nga bëgg wala ñépp tolloo ko ñu bew ku ne gis ne dangay gis koo xam ne nii day xool boppam ba yàgg mu jekk mu gis ne daal diw moo gën a jekk mu ne mu dem defarwaat mais yàlla ne damaa def ñii ñu rafet ma def ñii ñu ñaaw def ñii ñu am def ñii ñu ñàkk def ñii ñu am bëri xam-xam baatin ñii xamuñu dara yàlla ne maa ko defee noonu ku nekk ma am lu ma la sédd bu ko defee nag ñu mën di jariñante suñu biir am na ñu naan bég leen te xam ne anna nuural xatmi laylakum qad xalla fi xiimatin min atharil xiyami sama am ne tanabahu yeewu leen loolu haatif yi wax ñu ngi koy wax ca kaw am ñu koy dégg nag ñu ne yeewu leen parce que leer gin doon xaar te nga xam ne ma war mottaliku yonent yi te muy seyduna muhammad ki ñu doon xaar daal tey jii ci guddi la wàcc ci biir woy juram bu tedd bi nga xam ne moo gën a tedd ci mboolem biir yi ndax biir boobu moo ëmb sayyidina muhammad salaa salaam di biiru sunu yaay amina fa tabaarakallah kon moo gën a laab ci biir yi ndax sayyidina muhammad moo gën a laab ci nit ñi rasulullahi sa maam sidi xaaj maal ne kon nag ëmb nañ ko moom jol màkk li des mooy mu gane àdduna kon nañ ko préparé ak ñëwam loolu waral ana atiroo baxiroo xayral buxuuri wa afrisu sajaadaati takriman ala alquzami kon nag laal leen parfum yi gën a neex taal leen cuuraay yi gën a neex waaye lal leen sajaada yi gën a nooy ñu ne ko Maodo lu xew mu ne takriman alal quzami ngir màggal aji bari ji yiw ji di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kooku jar naa màggal mbokk yi boobu nag yàlla mu ngi wax ak malaayika yi naan qaala al malaayiku abwaabu sama futixat kazal jinaanu wa nuuru samsi fi l azami qaala allahu wa taala ya ayuha al iftaxu abwaab alsama waftaxu abwaab aljinaan wa zidu nuur alchams euh, malayka naan li ajli man li ajli man euh, li ajli xabibi wa rasuli wa nabiyi muhammadin alayhi salaatu wasalaam pour nga dégg yàlla nee na malayka yi ubbi leen buntu asamaan yi ubbi leen buntu aljanna yi waaye yokk leen leeru jant bi malayka yi ne ko lu xew mu ne ah damay màggal nag sama soppe bi sama xarit bi ki nga xamne mako yoni ci ñepp ki nga xamne mako jox xeetu xam-xam yépp tan ko mu gën ñepp ñu ne kookal kan la mu ne moy sayyiduna muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. jol makka nak judo makkatal mukarrama ci siab abi talib ci ut abu talib fa la judo mom sayyiduna muhammad sallallahu Alaihi Wasallam ci makka ci ñaari waajuram yu tedd yoyu yu sel yoyu yu set yoyu yu bax yoyu Njool Màkka nag bi mu juddoo doon xale dafa mënoon a jaamu yàlla bañ di ko tëkkaleeg ñi jaamu yàlla ba bejaaw ba nga xam ne dañoo maîtriser seen borom xam ni ñuy jaamoo seen borom ñu leen di tuddee an nujabaaw ñooñu lan daan tëkkaleeg Seydina Muhammad bi nekkee xale Muhammad al Bushiri ni alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza baaw mu ne Seydina Muhammad daal alifa miinoon na lool an jaamu yàlla ci gàtt jël gàtt rend tojate def ay saam saraxe hmm? wala ibaadata ak jaamu yàlla ci cër julli zikkar te boobu xaale kaw ni hi tiflan boobu njol màkk xale bu ndaw la mu ne wa hakaza nujabaaw mu ne ak nujabaaw yi te mooy ñi tedd ñi nii ko njol màkk di defee ci bi muy xale ñoom noonu la ko doon defee kon njol màkk jaarul ci ndaw fowul taxawaaluwul daa judd rek sóobu ci yoonu jaamu yàlla moo tax ndaw judd soobu ci yoonu jaamu yàlla loolu lu am solo la Seydina Muhammad nag nekk màkkatal mukarrama ba am 40 ans ba amee 40 la ko yàlla di dóor a yónni moo tax nit boo amee 40 ans bul ragal dara waaw loo ragalool ba am 40 ans bul ko ragalati tabaarakallaahu yàlla nag yónni ko moom Seydina Muhammad mu nekk Makka commencé di waare di woo nit ñi ci diine lislaam ci secret nag waaw comme gis ci pet gaara la lislaam wax la lislaam euh, ñi dugg ñi di ñi di bañ a dugg mu def ko ñetti at yàlla jékki-jékki rek ne ko nag wa anzir asirataka al aqrabin ay wax njool màkk waaral ñëpp nag na ñëpp dugg ci lislaam yëkkatil ko njool màkk commencé koo fësal nag sallallahu alayhi wa sallam ah yéeféer nag commencé nag taxaw daane waa jii daal bi nga ko bàyyeeg lii mu nekke bu yàggee mu soppi ñu jëlee ñu suñu diine ji ñu nekkoon ndax boobu ñoom seen diine yi bàyyi maam ak seen bàyyi la nekkoon te mooy jaamu ay xërëm Seydina Muhammad nag bëgg leen a génne ci jaamu xërëm yooyu indi leen ci lislaam ndeysaan moo tax ya rasulullah ni leen yéen xërëm yi ngeen xam ne yéen a ko yat yéen a ko defaral seen bopp xërëm yi mënu taw mënuñoo wax mënuñoo bouger bu ñu déplacé wu yéen leen déplacé nak ngi leen di jàmmoo ci dëgg dëgg dëgg yéen a gàtt xel hmm? di waare moom njoon màkk di waare nit ñi commencé dugg ci lislaam yéeféer nag am problème comme nit ñi commencé dugg ci lislaam am nañu problème ndax xam na ne lii waa ji di woote bu yaatoo rek seen affaire yàqu ndax boobu ñoom ñoo ñoo jiite màkk ñooy buur yi ñooy buur di bummi lépp ñoo koy def tabaarakallaahu te li njol màkka di woote nag ñu ci duggee ñëpp a yem amul kenn kuy féete sa morom kaw léegi ndax inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ñoom nag la ñu jàpp mooy ñoo ñoo moom ñooy kilifa yi ñoo yor alal ji ñoo yor pouvoir yi tabaarakallah ci loolu la nekkoon sa maam si ne xajmaa nag di ñu nettali li xew ci biir lislaam di tàmbale mu ne wahum li itfaai nuuril xaaliqi jtamau lamma fasha xabarul islaami fil imami sa maam ne wajtamau dajaloo nañu ñan ñoo dajaloo hum ñoom yéeféer yi lu tax li ittifaai nuuril xaaliq ngir nam fay leeruk aji bind jii di yàlla te mooy leerul islaam Maodo loolu kañ la mu ne lama fasha ba siiwee lan moo siiw mu ne xabarul islaami information l'islam moo commencé tasaaroo fil yi ci àdduna bi fil imami ci xeet wi fii fil imami ci biir ak ci biti ah am nañ problème nag l'islam a ngay yokk l'islam a ngay dem l'islam a ngay tasaaroo yéeféer na daan nañ taxaw temm jàmmaarloog waa ji sinon rek du baax action bi njëkk a def dañoo def délégation délégation ba nag am na ko ñuy wax ba ak shayba ñom ibna rabi' rabi' mo len jur abul bukhtari ibn hisham wal aswad ibn muttalib wal walid ibn mughira wa abu jahl ibn hisham wal as ibn wail ash-shahmi wa nabi munabbah ibn hajjaj délégation bi ñoo ànd ñëw ci abu talib nako ya abu talib إن ابن احيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وصفها أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا wa imma an tuxalli baynana wa baynahu fa innaka ala misli ma nahnu alayhi min xilaafihi dañu ne ko yaa aba taalib sa doomu mbokk mii di abdallah di saydina muhammad salaa sallam na abdallah ak abdu muttalib ñoo bokk abdallah nag moo jur saydina muhammad ñu ne sa doomu mbokk mii daal mu ngi xas suñu papa yi di ayibal suñu diine dañu xas lu ne mu ñu koy sànni léegi nag ñaar mën am benn dangay ngay wax ak moom mu bàyyi ñu bàyyi suñuy diine bàyyi suñuy bàyyi wa illaa nga puus suñu diggante ak moom ñu jëflante ak moom ndax kat yow ak ñun ñoo bokk li ñu gëm ñoo bokk ci li ñu nekk te mooy ñu ngi suñuy diine maam ak suñuy diine bàyyi ah fa qaala lahum abu taalib qawlan jamila wa raddahum raddan raqiqa wa rajacuu bi duni garadihim ndeysaan nee na Abu Taalib daal leen wax wax ju rafet daal leen delloo nag delloo gu sedd wax ñoom wax ju sedd waxi kilifa tabaarakallah ñu daal di dellu nag te ndeysaan ba ñuy dellu nag ñoom yéeféer yi bëggoon amuñu ko fa waasala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daawata njol màkk nag continue nag di woote ci lislaam continue di waare gaa yi toog ba yàgg mootuñ koo muñ يدار دفع دلegation المفاوضة الثانية بمثابة التهديد والإنذار حيث قالوا له لسان لأنك يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإن قد استهيناك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعل وإنا والله لا نصبر على هذا من ستم آلهتنا وتسفيه أحلامنا وتضليل آبائنا lisaan xatta takuffahu anna aw yuhlika ahad al fariqayn ne ne ko nag ñu ne ko Abu Talib ñun nag wax nan la ne la yow yaa mag ci ñun te it ku tedd nga ci ñun te am nga wàccuwaay daraja bu rëy ci sunu kaw wax na la nag ne la teral sa doomu mbokk mii defuloo ko ñun nag ñu ngi lay giñal ne mënuñoo muñ muy ŋàññi suñu yàlla yi di ŋàññi suñuy baay di ŋàññi suñuy diine loolu moom ni ko nangu moom léegi nag leen moo mën a am dangay wax ak moom wala boog ñu xeex ak yow xeex ak moom benn ngeen jeexal ñu ñun ñu jeex ngeen continuer seen mission yéen wala ñu jeexal leen ngeen jeex wax ji yem fi ah bi ñu waxee loolu nag Abu Taalib nag xaw na am lu mu yëg ci la ñëwee Seydina Muhammad salaa salaam di ko wax ak moom nag ah yab na am mi te nga bàyyi lii bokk màkk mer nañ de te niñ ñëwee nii moom ah doy na waar Seydina Muhammad ne ko yaa amma wallahi law wadau alchamsa fi yamini walqamar fi yasaari ala an atruka haza al amr lan atruka xatta uhlika fiihi isaan fa bakka sallallahu alayhi wa sallam nee na ci la ko seydina muhammad waatalee ne ko yow sama baay tëxa maa ngi lay giñal ne bun jëloon jant bi li muy tàng-tàng teg sama ndeyjoor jël weer wi teg sama càmmooñ pour ma bàyyi lii may woote te mooy diine lislaam duma ko bàyyi mukk lu dul na yàlla daa feeñal diine ba ñépp jot ci wala ma faatu ci man bi njool maa ko waxee loolu dafa jooy bi mu jooyee nag abu taalib daal koy woo ne ko nag waxal lu la neex dama fu la neex wallahi duma la jébbal mukk noon yi tey duma bàyyi mukk ñu dal ci sa kaw sallallahu alayhi wa sallam ah njool maa ko continuer abu taalib nag xam na ne caaxaan kon jeex na njool maa ko continuer gaa ñi dafa beneen délégation indi wa indi benn xale bu ñuy wax عمارة عمارة بن الوليد فقالوا يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أعز فتى قريش وأسعرهم وأجملهم فخذ فلك عقله ونصرته فاتخذه ولدا وأسلم لنا ابن أخيك هذا محمد الذي سفه أحلامنا وحالف ديننا ودينك ودين آبائنا naqtulhu ñu ne ko yow Abu Taalib kii mooy Ammaar ibnu Ammaar ibnu Walid moo dàq Màkka gën fee jekk gën fee rafet gën fee am fasaax léegi nag dañ la koy jox mu nekk sa doom nga di ko dundal yar ko xelam ak li kàttanam ak léppam yaay boroom bu ko defee nga jox ñu sa doom mbokk mii di Seydina Muhammad mi nga xam ne moom dafay ŋàññi suñu yàlla yi di xas suñu baay yi di ayibal suñu diine ñu rey ko ah Abu Taalib ne leen waaye yéen lu ngeen bëgg ma jël sama doom jox leen ngeen rey ngeen jël seen doom jox ma ma di ko dundal ah yéen nag yéen a gàtt xel wat naa ko si yàlla lii ngeen bëgg doo mën a am moo tax samaam si la xaymaa ne jaa'u ilaa ammihi jiiman li yaxzulahu man yabgi bayda anuqin aaqilan yulami mu ne jaa u dikk nañu ilaa ammihi ci bay tëxam te mooy abu taalib jiiman trois fois li yaxzulahu ngir ñu becc ngal rasulillahi sa maam ne man yabgi kuy sàkku bayda anuqin nenug céeli ñii ne nenu bànjooli aaqilan tey borom xel yulami yee def ko céeli ak bànjooli fa ñuy nedd fa ñuy nen dafa sori ñeneen ñeen ñi firee ko nag bàjjooli ñi ko firee tànn waaye ñoom fa ñuy nen dafa kawe garab garab benc ne yi ca kaw la ñuy nen te garab yooyu boo ci yéegee boo daanoo da ngay dee te yéeg ci yombut waa am nen nag bu la jaralee nga yéeg ci garab goog ba sa bakkan di nekk ci xottu gerte kuy borom xel war laa mën a yedd moo tax Sidi Hadj Mal ne ku am xel du sàkk lu mel noonu lu mu bëgg a wax ab léeb bu muy léeb la daa bëgg a wax ne. waa Màkka li ñu bëgg mënul nekk parce que li ñu bëgg mooy jël am Ammaar ibnul Walid jox ko Abu Talib mu di ko dundal yar ko Abu Talib moom jël Seydina Muhammad jox leen ko ñu rey ko mais loolu mënul nekk ah ba ñu xamee nag loolu sottiwul ah ñu daal di xam nga noonu moom du noppalu chaque jour ci ay pexe lay nekk ci lañu ñu nag daal di réunion ne nañu embargo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak njabootam képp bu ko defee buñ takk ci ñoom buñ leen may jabar buñ jënd ci ñoom buñ leen jaay bu ñu wax ak ñoom bu ñu wax ak ñu buñ leen faale nañ leen beer ñu beru ñun ñu beru suñu beru bopp ba ñu waxtaanee ba juboo nag daal bind daal taf ko ci biir Kaaba ga Seydi Hajji Maalik nekk ko bind mu ngi tudd Ikrima ibnu Mansour am na ñuy wax yeneen i tur nag waaye ki gën a siiw mooy Ikrima ibnu Mansour moo tax mu ne bi xatti Mansuura shallat kaffuhu salala saxiifatan kataboo waylan li mujtalami sa maam ne na kataboo bind nañu saxiifatan fooy bi xatti Mansuur ci bindu Mansuur ibnu Ikrama waaye ba mu ko bindee ba noppi nag sàllat dafa sem dafa làggi kafuhu tenq ba loxo ba mu ko doon bindee sàlla ak leggi ak làggi da ko bindee pare rek loxo bi daal di sew ruuj mootu dara foy bob nak dal koy dal koy taf ci bir Kaaba ga sayyiduna Muhammad ak sahaba am dal di beru sonn lol lisan ñu laaj mam Sidi hajma lol loolu waa loolu kañ la mu ne sab'ata xaaza sabaata awaami nubuwatuhu kaana alxisaaru min al aada zawi ljurami sallallahu alayhi wa sallam iz xaaza sabaata awaami nubuwatuhu kaana alxisaaru min al aada zawi embargo gi mu ngi am bi ñu yàlla yónnee Seydina Muhammad ba mu am juróom-ñaari at nee na ci lañ ko embargo noonu lislaam yu bon yooyu yéeféer yooyu nga xam ne yàlla ma nga ci alxuraan yuriduuna li yutfiu nuur allah bi afwaahim wa yaba illa an yutimma nuurahu walaw kariha alkaafiruun yàlla nee ñoom ñu ngi bëgga fay lislaam ci seeni làmmin waaye dañuy sonn rek waaye man yàlla lànk naa dañ ko fay mukk lu ñu bañ bañ lislaam dañuy son rek waaye lislaam dana jóg ah bind nañu fooy ba taf ko màkk ca biir kaaba ga seyduna muhammad toog ba yàgg rek mu ne bàyyi tëxam abu taalib ne ko yàlla day ne ko fooy ba nekkoon ca kaaba ga day lekk nañu ko abu taalib ne ko ah lekk mu ne ko ah. wóor na la mu ne ko wóor na ma lek nañ ko yàlla mako xamal bam dess nak nag turu yàlla ba te moy bismillahir rahmanir rahim bam bindon ci kaw wa khabarul mustafa information bañ njoon màkka joxe min annaha niki foy bobu ukilat ukkilat lekkeef na mu informe ko nak li ammihi ñeel bàyyi tëxam ya lahu kayl li yéemu min sadiqin ci aji dëggu ji di rasulillahi karami ki aji tedd ndax kat bamuy muy dëggu boobu xale la ndax waa Makka ñoo ko tuddee Muhammadul Amin Muhammad Sadiq Muhammad mu dëggu mi Muhammad mu wóor mi nga xam ne Makka lu ku loolu loo daan dénkaane bañ mu siiw njool Makka nga koy dénk ndax ni mu dëggoo woon rek waaye gis nga de li muy baax baax ak li ñu ko doon bëgg-bëgg ba mu wootee lislaam rek ci la ñu bañ waaye ñoom ñoo gën a xam ne njool Makka dafa dëggu ah Abu Taalib ne ko ah man de mosuma xam ci yow loolu dëgg mu ne ko wa qaala yaa am إن الله سلط أرضا عليها سوى ما كان للحكم من قصة أبي تخر يلا ما في بال مخ مخ ملك فوي بمجيخ تك بمدرس بسم الله الرحمن الرحيم لولو جيخ الأنبار قوبا تبارك الله ومتون لول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكن جبوتم سمام سيد حي مالي داني بروم خم خمي ويرنت ننجي ñi né nañu embargo gi doxna diré né 3 ans ñi né 2 ans la diré ñu ne deux ans et demi amay ni ñu ne ñaar at bal li fi ne xiila waxeef na jiimun ñetti at kaana muddatuhu mu nekkoon diir ba wa qiila baynahuma am ku wax lu nekk ci diggante ñaar at ak ñett te mooy ñaari at ak genn waal waaye nax jël hudaa dal istaqimi sa maam nee na jaaral ci yoonu njub tabaarakallaahu te bañ a jaar ci ci ñàll wa bul jaar ci yoonu dëng wa kon sayyiduna muhammad sallallahu mu ngi noonu yàlla yónni ko jox ko lislaam mu gëm li ko yàlla jox am ci fulla am ci fayda am ci pastéef gëm ko yàlla boole ko nag saxaaba yu dëggu yu ko bëgg sopp ko ba pare bëggante seen biir yërëmante seen biir te li ñuy def lépp sàkkuwun ci garaat sàkkuwun ci pouvoir sàkkuwun ci dara liñ ci sàkku lenn rekk la mooy ngir ngërmande yàlla ak ngëneelam ak yërmandeem looloo tax lislaam yegg fi mu yegg waaye nag fa tabaarakallaahu tey nag ñoo ñoo manqué ci lislaam waaw ay nit yoo xam ne dañuy défendre lislaam ay nit yoo xam ne dañoo gëm lislaam ay nit yoo xam ne dañoo bëggate seen biir ngir lislaam looloo manqué léegi léegi nag lislaam dafa tasaaroo wuute yi am ñii am lu ñu gëm ñii am lu ñu gëm ñu tasaaroo looloo tax tey noonu lislaam ëpp ñu doole tey bay daana lislaam kon nak jotna seuk ñu àndaat dot ben jappo yekati kalimatu la ilaha illallah Muhammad rasulullah ci mbollem aduna bi ndax kat mu jee poussé mu réer nak baxut kon nañu gorlu ñin ñi nga xamne ne ñoo ngank diine ku ci nek war wala yalla man lo nga man fa def sa sa kéemtalaay katan ngir l'islam bi tasaaroo dama defal sa kéemtalaay katan ngir xalé yi xam sen diine xam sen l'islam ndax jamono ji ñu tollu jamono joo xam la ku sàggan ci say njaboot duñu xam seen diine kon yàlla ñu yàlla sàmm sàmm leen yàlla defal ñu wér te defal leen ko ci daraje sayyiduna muhammad salaa sallam ñu jox leen dig daje ci yeneen émission seen émission Madhoun bi ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu